bàyyi bàyyi ma laaj ko bàyyi Assane ba xam moom lu mu. loolu la non non ci lan aywa <laughs> ci xalaat. borom deuxième tour doo ci wax. deuxième tour la. ah dégg non non non. waaw mais daf yow élection yi jeex ca 19. waaw waaw waaw mais waaw mais waaw mais nit ñi bugaan lañ yëpp <laughs> laaj ma lu tax. <laughs> eh eh laaj ma lu tax. Hmm. ma ne la bugaan lañ yëpp. charte yooyu ba ca boppam. Uh-huh. déetee nga fa. gàkkoo nga fa. Cheikh Tidiane Dièye. Habib Sy. Pur. ak Malick Gakou. on avait six candidats. kon la Yewwi ci sartam ubbi woon nañ benn parenthèse. c'est ça wax na dañuy ànd local ànd député bu présidentiel bi ñëwee chacun est libre mais bu ñu demee deuxième tour. ñu booloo. le candidat le mieux placé ñu jàppale ko. waaw waaw waaw waaw ñoom ñoom it kan ñoom bàyyi ñu xel deuxième tour nañ bàyyi Bougane. <laughs> Mm. calculer deuxième tour. Yewwi mm. calculer deuxième tour. Mm. Ousmane calculer deuxième tour. moom Sonko Gàkko calculer deuxième tour. Déthié calculer deuxième tour. Cheikh Tidiane Dièye calculer deuxième tour. Habib Sy calculer deuxième tour. PUR calculer deuxième tour. Bougane Gueye Dany calculer deuxième tour. Amadou Ba mujj gi ne deuxième tour day am par force. <laughs> mais dañuy waaj dañuy waaj a dañuy waaj a ndogu Mamadou commencé kii. ma ne aw Diop Ndiaye nel kii mu bàyyi muy def nit ñi dañuy ndogu ay kilifa yu toog di ndogu ngay génnee résultat ni di nga yàq ndog bi mu kii wóorul dajale ko tënk ko joxe ko mu dem moo gën lii yow 18 nit ñu xam ne ba pare sax loolu sore na boo xoolee poubelle yi boo duggee ci isoloir yi boo xoolee poubelle yi bul xool poubelle yi bul xool ak internet bi non bul xool poubelle bul xool internet bi yow mbooloo bi ni ñu ñëw ah. sept heures et demi avant ñu nañ nit ñi dañu décidé. ñoo fajaru te nit ñi li ñu décidé lenn la mooy deuxième tour du fi am benn ñaar amul ci parti bii laa bokk amul bii ñii duñ leen déggal. c'est ça sénégalais ñoo décidé taxaw nee rek maam Diop nag boo sàgganee du dem palais. <coughs> ah lu mu fay wutati. non ataa defal ndànk. Hmm. Macky Sall mënul mënul fi bàyyi réew mi noonu dem yoonam. ah Macky nee la deux bu ñu amee chance mën na fi toog ba le deux mu def passation de service. ku ñuy defal passation léegi Diomaye kan non non Diomaye ala kulli de pouvoir. moom Macky lay doon wala moom maam. Hmm. Macky waxoon na bu weesoo le deux mënatul nekk mais le deux. Macky moomul nit ñi. déglu ma expliqué jaara Macky moomu nit ñi de te yow it nit ñi de. <laughs> ah kay. xool sax damay <laughs> xool yow lu leer lu mel ni midi waaw bàyyi jàpp man de fi mu ne nii yi si dama leen a ragal a tudd waa APR ci boobu li may am fi yëpp. Hmm, hmm, hmm. ñoom ñëpp ñoom ñëpp nëbbatu. dama bëgg a bàyyi dama bëgg a bàyyi ba ngelaw li romb. <laughs> zrobili. astafurlah ay yàlla baal ma ay yàlla baal ay yàlla nu yàlla baal. astafurlah yéen mën ngeen dem naan ndox samay kilifa ngeen waaye astafurlah astafurlah mën ngeen daal di góob café de astafurlah ana ana kii. si. fàtte woon naa kooku anamu ak fu mu ne ci réew mi. laa ilaaha illallaah waaye li mu doon nii. ndeysaan dañoo dambante woon rek. dañoo dambante am na ñoo xam ne dañuy génn réew mi de par force. mënoo ci dara. mënoo ci dara nañ fexe daal ba bu fi kenn xaru te bu fi kenn dee. moo tax bu leen bu leen kenn jege bu leen kenn laal li na lan leen sama xarit bi nee na <laughs> bu joomaay jëlee dëkk bi mu xaru te sénégalais yi bëgguñ mu dee effectivement bëgguñ nga dee. fu mu ne fii. fu mu dëkk. waaw sa naataango tamit génnagul de est-ce que doo ko woo laaj ko. kan la Koura. non moom moom laay wax nii. seeti ko yéen seeti ko seeti ko dem leen seeti leen ko seeti mm-hmm. ko ay bokk ngeen nag seeti leen ko Koura Macky bokk na ci ñi ma gën a sonal ci réew mi <laughs> ma yaakaar ne ci rajo yi rek la yem ak xas gi may xas yëpp mu yóbbu ko assemblée <laughs> suñ ne la parole à notre collègue Pa Assane Seck notre collègue Ahmed Aïdara se prépare. day daw dem julli ji. maanaam. ñu bëri ci la ñuy génn maa ngi bëri Sadio bu ñu tuddee. Ah. ñu bëri ci la ñuy génn daw soit ñu daw añi wala julli wala dem tuur ndox ñëwaat. c'est notre collègue Guy Marius Sagna sa prépare nga gis 30 députés defandoo nii wala ñëwaat fekkee. soo ne asalaamaaleykum monsieur le président monsieur les ministres chers collègues mu ne la doo dara <laughs> sàcc yi bon yi. fen ngeen ko fa. jeexal. commencement bi nag doo doo doo naan da nga ne di kii yooyu mais gis nga ba ba demee ba jëli ca ginnaaw la ñu ne. ay jinne la fal géejawaay ngi rëcc doo tus doo dara géejawaay amul meer ngeen. ne sarab léegi yu mag eh, waa ji waa ji nee sarab bii plateau. <laughs> sarab bii plateau waaye yàlla suturaal nañu ba Macky di dem xëy na lii xëy na Bassirou Diomaye Diakhar dina ñu may lii. ñu koy def sax suba teel bëggeel nit ñi jox leen information. ah réew mi fii la toll. ah c'est grave ah. ku amuloo lekk amuloo naan gobar jaasi. mën a féexal sa xol waaw. depuis ci reer. wax dëgg fa yàlla instant si dañoo war a dindi stress bi nag. reetaan dañu sonn. bi <laughs> c'est le cœur. loolu lu ca lu a des ka paasal eh, président assemblée nationale bii li ñu doon foog mën naa am de. Mhm. xoolal kii nouveau type de dirigeant. Mhm. faiseur de loi. yonent bi élection mairie yi am na ñenn ñoo xamante ni nii dama doon tëdd ba guddi ñu lay woo ne na doo leen ñu dimbali ngir yàlla ngeen wax Ousmane Sonko mais mu jaar ci sama commune. waaw na jaar rek na jaar bu waxul dara na jaar. bare na ci. bare na ci. dégg na ci na jaar. élection député rek. romb rek. barke bi macha allah. cuuraayu dëmmam bi ku dul dëmm dund rëbb dëmm gi kuy dëmm dee cuuraayam la yoroon rek toog ci kaw oto bi. mu la mu la cas. mu la cas moom daal am daal la ko booy taalaloon. ci biir dëkk yi di xam ak a xëmmiliku. ak sa président assemblée nationale bi natt dégg président de la mooy soo ñamal mi mu dee deux jours benn libération yéen kaay ñëwoon ñun ci observateur yi bég nañ ci ko kontaan nañ ci de. waaw quand même. waaw Matar Cissé ngi nii lañ ko fi jëwee woon keroog fii ñu ne ñoom saa. ah oui ah. géré na bu mag bi. bu mag bi. gàccelu kenn borom borom xam-xam yi nee nañu. voilà 92. 1992. waaw la jël la jël wird. macha allah waaw nit ñi kenn du leen xam. taalibe taalibe ce serait bon ce serait bien ñu bàyyi ci xel pour garder ko. macha allah nañ ci bàyyi xel. nañ ci bàyyi xel c'est ça. l'armée organise finalement une prise d'armes à la place de l'indépendance le 4 avril. une première historique pour le président Bassirou Diomaye Faye. Mm-hmm. dañ ne woon dañ ko annulé. finalement nee nañu danañ def prise d'armes mooy li ma leen expliqué fii démb rek. Mm-hmm. passation de service beeg déclaration le 3 avril beeg. Mm-hmm. yooyu noonu yëpp yëpp yëpp yëpp ak le 4 avril. booy doog a bees. organiser ko fi du fi xëj. c'est ça armée bi sax mën na ko quoi. dafa xat mais day xat moo tax président bu ñu leen falee nii bees. Mhm. leur premier mandat boobu da ngay daal di dañuy def prise d'armes. mais loolu war na changer nag à partir de Bassirou. waaw pour que moom bu waree dem incha allah keneen kii ñëw day ñëw rek déroulé. day ñëw déroulé parce que c'est la révolution bi loolu la. bi la. c'est ça ce sera sa première sortie des armées. yàlla na ko jig yàlla na ko jig macha allah macha allah. waay waay. xaaral ba suba saamoon gars affaire bi nan lay demee <laughs> ay reporter lañ woon nag. Mm-hmm. dañ cee yàgg a topp doom day mm-hmm. Mm-hmm. wala jaara ñu jaara ñoom ay càppaatoli rek dañoo jug rek dañoo jug rek nekk da teel a tàmm ay clim xamante ne lii <laughs> waaw pour nga yow lii bëri na ci de non presse bi yàqu na ñëw rek toog <laughs> yow sarab lii dégg nga waaw quatre cent millions moom tamit nag genn wàllu milliard na ci nekk waaw kii tam wéebam bi am na doole di. di compte wéeb. <laughs> non waaw wéeb ñoo woon comme compte bi ci Orabank. 400 millions. Ah. les fonds détournés ont été ventilés vers 14 comptes ouverts dans la banque. un suspect dont le de l' agence Orabank de Diamniadio. Mm. un membre du conseil d' administration de la mutuelle.